loi numéro 77 87 bi ñu voté woon le 10 août 1977 xanaa kon Bah Diakhaté tëjul tëjlu na boppam wala teelu na boppam wala woolu na boppam Bah Diakhaté ñi ko induire en erreur bokk na ci Madiambal Diagne mi xëy bind wala mi bind ci page Facebook am ne tàmbalee victimiser wu di wax ay sage aux Bah Diakhaté man yow yow Madiambal Diagne dama naan xaw ma sa jàng soriwul xaw ma dangaa jàng ba pare sa jàng nga ko utiliser neneen contre askanu Sénégal xaw ma naa féq xaw ma leneen kenn xamul lu la dal parce que lii article bi wax dafa leer ci loi 77 87 bu 10 août 1977 demal nga lire code pénal bu ay magum jëmm toogee ne gisuñu asamaan ay xale yu tuuti dañ nañ toog ne asamaan saa ngi nii teel leen par force ngeen xool ko ci yar ak ci teggin nag ci ay sutura parce que lii lépp tayeef la te dinaa leen ñëw wax leen ci kanam ak Madiambal Diagne sorteem boobu ak lan moo tax mu def ko parce que day protéger day protéger nitam day protéger koo xam ne nee naa leen nguuru Sénégal gii fi jóge ñoo ko daan xont dafa meloon ni comme xar nguuru Sénégal ñoo ko daan xont dama ni la ba mu sañee takk ñaareel saña beru ci appartement ci kër yu luxe yi nekk ci technopole mooy ba nguur gi dugalee alal ci moom ba nguur gi dugalee alal ci moom la commencé di dawal oto yor benn xaalis bi te ku dëkk Pikine xam na li may wax parce que ñun tamit bëgg nañoo wax lépp waaye itam am na ci loo xam ne dañuy ormal famille yi nga xam ne fa lañu bokk parce que duñu sàggi sutura kenn dañu wax ak moom mi def rek muy bar jaxate parce que tuuma yi mu teggi di ko teg ci deru jàmbur yi ñuy dànkaafuwaale képp ku mel ni moom wala képp ku doon wàcc li nga doon def préparer sa bopp te xam ni dëggalal sa bopp ndax fi li Bah Diakhaté dund démb ak tey yow mën ngaa dund ko raw te dinaa ñëwaat ci loolu ak i tur donc Bah Diakhaté ñu fekk ko kër ñaareelam boobu mu toog teg Pikine Technopole di def live bi ñu ne la jógal topp ñu nga jóg sans pipe moo dangaa ne woon guerrier nga nee nañu ancien soldat nga nee nañu dangaa def arme ba tax tay jii caaye ku ne nga dugg ci ba tax tey jii ngay oy oññi ay sutura ba tax tey jii yow tu te permets lu la neex nga wax ko ci deru jàmbur tey li nga doon wax réer na la parce que nag dangaa dig sa ay mbokk internaute ak ñi nga xam ne nii tay jii ñoom ñoo la yónni pour nga wax danga leen woon am nga preuve tey gàcceel nga sa bopp gàcceel nga lépp loo mës a laal gàcceer nga képp ku la mësa mës a jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo dem démb ak tey di la soutenir nee biir dig xaaral ma ñëw ci yéen di ngeen ñibbiwaat seen kër yi ngeen toog ma wax leen yéen li leen ci mën a fekk may leen ma tuuti ci yooyu la information donc ci loi bi ma leen di wax buñ ci tënkoo te ñu voté woon ko mil 10 août 1977 loi boobu. bi fi président Abdoulaye Wade nekkee dama leen di wax rek ci fàttali Mame Madior Boye bi mu fi nekkee premier ministre yéen a ngi fàttaliku laa daam Mame Madior Boye ba mu nekkee woon premier ministre ci euh, ci nguuru Abdoulaye Wade dafa am benn journal bu génnoon benn journal bu génnoon journal bi génn caricaturé ko caricaturé la daam daal di bind ci moom loo xam ne bëgguma ci ñëwaat parce que yaay la soxna la kilifa la donc su ma waxee ñi fàttaliku dinañ fàttaliku li may wax journal boobu ba mu génnee caricature euh, ki nga xam ne moom mooy Mame Madior Boye boo leen fàttalikoo Mame Madior Boye dañoo xëy mu dem porter plainte en tant que premier ministre en tant que institution ñu bëgg a deram ñu bëgg a ëññi suturaam jour boobu ku ne fàttaliku na ne journal boobu dañoo dem jàpp leen dañoo dem jàpp journaliste ya biñ ci jóge président Abdoulaye Wade ci jamono jooju dafa santaani ngir ñu dugg ci réew mi journal boobu fu ñu ko tafoon di ko jaay dañ ko faa teppi dañ ko faa dindi maanaam dañ ko censuré woon jour boobu amut dañu nangoo lépp lépp lépp dem dem dem sànni ji parce que dañu ko catu caricaturé wax ci moom lu ñaaw te loolu lépp wàllu politique rek moom moo ko waraloon pour vous dire yàgg nañoo caricaturé ay jàmbur politique yàgg naa tax ay nit gën def lu ñaaw te dama ne la article bi ma leen di wax ci lañu sukkandiku woon ci jamono jooju ba ñi loolu ci Mame Madior Boye caricature rek lañu ko defoon tooguñu di wax ni nangam la ak naan am nañ ci ay lii dañ ko caricaturé maanaam dafa am lu mu def ñu jël ko tiitree ko neneen segam kooku nag jamono jooju moo mënoon a am loolu marsa Ousmane Sonko marsa ki nga xam ne juróomi at a ngi nii ay doomu aadama di génn di wax ci moom lu dul dëgg di wax ci moom lu dul yoon di saaga waajuram ba waajuram bi génn àdduna ñu koy saaga jàpp ko tëj kaso jël ay ñoñam tuumaal leen sosal leen tëj leen kaso jël ñu sës rëkk ci moom rey leen jël ñi ko amoon ngëm ci moom rey leen dama ni kooku muñ googu xëy na mu doon wéyee muñ boobu lay wéyee ba tey moom la continuer ba tey en tant que PM waaye nag dootul Ousmane Sonko ma woon fi mu nekk nii Ousmane Sonko en tant que PM maanaam le premier ministre du Sénégal la ñuy wax yàlla dafa mën de dootul la personne de Ousmane Sonko lañuy ñuy ci lima leen wax ne leen Bah Diakhaté amul xam-xam Madiambal Diagne ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jege amuñu xam-xam. ñoom xamuñu woon article bi ndax existé na moo tax bi ñu demee bay offensé demuñu directement ci ci président de la république dañu ko jàdd ci premier ministre parce que xamuñu woon ne article bi existé na parce que ñoom 12 ans yi ñu fi def dañoo gërëmal nit ñi ci ay article gërëmal nit ñi ci ay loi salfaañe sunu àq ak sunu yelleef salfaañe sunu wàllu yoon ba nga xam ne nii kenn xamatul luy lii wala luy lee kenn xàmmeetul A wala B loi kenn xàmmeetu ko kenn xàmmeetul article xam nga lan lañ xàmmee woon Bah Diakhaté jóg le les les insulteurs de la république de euh, républicaine jóg Anita Diop jóg keneen ak keneen jóg ñu ne dem leen jàppi diw dem leen mi bërëb sàngam dem leen wëri ko moo ne nàngam moo ne sàngam te pourtant boobu noonu ñoom bi ñuy wax est-ce que yéen daan ngeen gis kenn ku nekk ci Sénégal koo xam ne am nga fitu saaga benn ministre wax ma laa nag le PM yi fi jaar yépp ci atu Macky Sall yi wala le président de la République kan moo mës dégg ku toog fii Sénégal saaga leen mësul am ñiñ doon tuumaa ñépp di leen toppee ci ay article ak ay loi en commençant par le président de la République actuelle mu di le président Bassirou Diomaye fay lan lañ ko tëjee woon post Facebook post Facebook ñu jël ay tuuma yu metti teg ko ci kawam waxuma laa nag le PM Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci ministre yi ak ñenn ci DG DG yi moo di directeur généraux yu ñu fal bees mën nañ leen cee limal ñu baree baree bari ñoo xam ne nii saagawuñu offensé wuñu mësuñoo wax li nga xam ne ni moom mooy lenn ci ci ci ci lu jëm ci article yi may wax wala lu laal wala lu laal lu sensible mais li ñu defoon moom mooy ñoom jamono jooju xàmmeewuñu A wala B pour tout lañ doon def képp ku sa kanam neexul kanamu république bi nekkoon fi njiital réew mi président Macky Sall ak waa këram ñu yóbbu la kaso wala ñu ñu faat la képp ku def loo xam ne nii xaw naa niroog luy fipp rek. parce que bëggoo ku noot sa bakkan ñu ne la ay ca oo ñuf mais loolu yaakaaroon day continuer sa va pas continuer en plus bu leen taqale lu taqaloowul bu leen dendale lu dendaloowul dañoo bëgg a làqatoo li fi amoon pour mën a amal yoon li ñuy def ak li ñuy wax déedéet parce que c'est pas la même chose c'est pas la même chose dama ni jàpp nañu Bah Diakhaté jàpp nañu imam euh, Oustaz Cheikh Ndaw Cheikh Tidiane Ndaw léegi nga gis leen ñoom ñëppay ruux ñoom ñëppay ruux parce que ñeme amu fa ñeme amu fa ay ragal ay tàppet képp képp fa nekk yàgg ngeen a toog Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma gis ko ci vidéo yi mu ne day xeexal Bah Diakhaté lan la fi waxoon jamono yi paase lu mu waxoon ci vidéo fang daang ñëpp di gis du def ne woon lépp lu mu mës a waxal Ousmane Sonko xam na ni ay kàcc la du loolu la fex moom moo ko waxal boppam moom moo ko waxaloon boppam kenn waxalu ko ko donc xam nañu ne nekkuñu woon ci dëgg nekkuñu woon ci yoon te fi nekk nii nii nii nii la doom di gën a neex ndayam parce que procureur de la république dootul bàyyi mu jàll institution kenn dootu ko salfaañe kenn dootul wax ci institution di ngeen jox nit ñi cër par force di ngeen bàyyi seen làmmeñ yu ñaaw yi nga xam ne foo leen génn leen yéen a ngi wax lu ñaaw di ko jëmee ci askan wi askan wi di ko déggaat ku ci nekk dara sa gémmeñ di ngeen yaru par force donc bu ñu jaxasee lu jaxasoowut moom baa jaxate laa leen di wax ne leen instant bii may waxee ak yéen mi ngi garde à vue entendre nañ ko pare mi ngi garde à vue tey guddeem gu njëkk lay fanaani ca plateau wala ñaareelu guddeem ndax démb fa fanaan ñaareelu guddeem dina ko fanaan ca plateau parce que kat li mu ne da ko teg jël ay tuuma teg ko ci kaw institution bi indiwu ci non seulement preuve mais dafa offensé institution bi su ko xamoon ba mu nekk dëgg sa waru koo wax waxuma laa nag loo xam ne lépp da koo formé da ko formaté dafa wax ay waxi boppam kese kese kese ànd ci ay narkat ak naafiq dinaa ñëw décrire leen seen façon communication bi ñu jël mais tamit ma ñëw ci journaliste yi journaliste yi nga xam ne yéen yéen a jóg depuis ce matin wala démb ba tey ne ci plateau yi di waxee seen bakkan di waxee lu ñu leen jox ci seeni ay poche di waxee loo yaakaar ak ñàkk xam-xam. parce que man bokk naa ci ñi ñàkk xam-xam mais o moins nangu naa ne bala maa wax ci dara dinaa dem gëstu malgré samay faute malgré lépp dinaa ko dem gëstu wala ma am dara lu ma ci mën a wax ba tax na bala nga maa vaar di nga def lu set te yéen ñu ci bari mën nañ leen a vaar dama ne yéen ñiy toog ci plateau yi di wax dem leen ngeen xooli article bi ma wax deux cent cinquante loi numéro 77 87 bi ñu voté woon le 10 août 1977 ngeen toog ab toog ci plateau yi di mbépp mbépp di wax di wax ak di utal mbir mi yoon kon da ngeen a xamul li xew Ousmane Sonko en tant que PM dafa am article bu ko couvrir ak ñu bari ci le gouvernement. donc seen mbéb-mbéb gi ngeen nekkee dem leen ngeen xooliwaat article yi xooliwaat lu waay wala ngeen dem jege juriste yi ñu wax leen ngeen soog a ñëw di mbéb mbéb ba pare yéen liggéeyu yoon fi mu ne nii liggéeyu yoon dañ koy tas tasaare lu fi amati dinañ génne nangam ak nangam parce que juriste yi ñu ngi ci dëkk bi waaye nag du ñu influencé benn yoon parce que amuñu benn benn prérogative wala benn dayo pour influencer. quoi que ce soit wala wala wala lenn amuñu sax dayo bi parce que fi mu nekk nii yoon dafa jubbantiku fa yéenee def lu jub wax lu jub ak teg lépp ci yel ci raay bi uteeg yoon bi ngeen fi nekkee donc euh, Bah Diakhaté yéen ñi ko gëm xam leen ne Bah Diakhaté dóor na leen benn bi dalee na taxañ sànni mbalit lim leen gëmloo woon du dëgg ba jaxate tegul dara dara ci kanam enquêteurs yi amul dara lu mu prouver li muy wax da doon wax falaa falaa da doon wax ci nafsu bakkat bakkanam da doon fen képp la doon def waxul dëgg ci lim wax lépp parce que amul dara lu mu prouver te bu soobee yàlla bu subaa dina dem ci kanam procureur daal di gën a génn li muy wax ginnaaw garde à vue am boobu suba dina gën a firndeel li muy wax su ko mënta firndeel dina xam nu muy defante ak digganteem ak yoon kon yéen ñi nga xam ne yéen a koy karkaral yéen ñi nga xam ne yéen yéen ay fi nekk nii toog naan deful deful continuer leen seen jëf jooju